di ñoo ngi ki nga xam ne moom moo ko yar euh, muy salaamaaleykum soxna si. mbir mi ñaawlu ko rek mbir mu ñaawa ñaaw bu doy waa doy waa ñaawa ñaawa ñaawa rek loolu rek dindi pièce jox la danga ko war a bàyyi mu dem. wala nga yóbbu rek bañ kaa def dara waaye dugal sa biir oto def lu la neex wàcce ka sànni ka rey ko noonu si dara lu ñaaw la lu salte la rafet lu wuñ ko dara dara dara dara. que yow kañ maanaam kii di Marie Gueye am na trop dama toog dafa jóge si kër ga ñu waxtaan mu ne ma ma dem ñëwaat ma ne ko waaw ma toogee ba ay presque vingt et une yooyu. ñu ooma te xale yi ñëw na ma yow yaay Baba Rose man leen waaw ñu ne ma kaay uyu nee nañ nga ñëw mari dañ ko dóor sànni ko foofu gendarme yee ko dóor man ko gendarme man ni sama doom ak sama doomi rakkal kaay la ñu dem ngeen bunge ma ñu indi ko biñ demee laa ku fekk mu tëdd dara yëngatuwul si moom ma ne leen yéen lu tax yóbbuwu leen ko hôpital ñu ne ma sapeur yi la ñuy xaar oote nañ ba sonn ñëwaguñu ma ne leen sapeur yi man duma xaar sapeur si laay jël yóbbu ko hôpital ndax boo ko fi bàyyee du baax si laa jëlee taxi yóbbu ko hôpital bi ma demee médecin bi xool ko dama indiwoo fi dara kii dee na bu yàgg loolu laa si am. avant boobu est-ce que fekkuma fa kenn moom rek laa fa fekk ak nit ñi ñu taxaw ñu wër ko moom kese. fekkuma fa kenn. jot ngeen fekk. man bi ñuy oote fekkuma fa ñoom ñoo ne ma oo nañ sapeur bàyyi ko ba sapeur ñëw ñu jël si ko ma nekk ko kii gisu leen état bi mu nekk yëngatuwul dara yëngatuwul si moom. ngeen bàyyi ko fa booy sauver nit bu sapeur ñëw da nga koy jël yëpp ko yóbbu ko hôpital si laa ko jëlee yóbbu hôpital. instant yi instant yi ñu koy jël naan da nga ko dugal taxi bi est-ce que boobu moo ngi woon bakkanam lu ñu laal mu bàyyeeku lu ñu laal mu bàyyeeku mais dama foog ma yóbbu ko rek xëy na xalaatoon xam ak yooyu mais bi ma demee dañ na ma indiwoo fi dara dara indiwoo ko fi ñu ko tegee si sario bi baat bi daf ko sànni indiwuñu fa dara mu sànni lépp. moom plat bi dafa doon liggéey. plage bi xam nga été la ñëpp dañuy dem plage ak ñëw fii Ngor géej rek la ñu xam dañuy féexlu di fa dem ak ñëw day féexlu ji sax ngoon ñëpp fa la ñuy aw féexlu loolu rek la def di dem ak ñëw mais def fa leen loo xamante ne du noonu été la rek ñëpp a ngi féexlu rek moom it am na droit dem féexlu comme ñëpp. gannaaw ba nga maanaam ñàkk na bakkanam est-ce que foofu dem nga si yoon wala nga dellusiwaat si kër samay mag ñoo ma indi ñoo jël taxi indi ma parce que man xamatuma woon dara lu xew parce que yëf si daf ma bett kilifa yi daal ñu ngi si def lu ñu man suñuy kilifa déedéet déedéet xamaguñ si dara ndax ñi dem hôpital ñëwaguñ ah, waaw maa ngi lay fay. tur bi naka la. Thiaba Ndoye. Thiaba sama doomu nijaay la. sama doomu nijaay la papaam ak sama yaay ñoo bokk ndeex baay. bi comme ni ko ñëpp yëgee rek man moom fekkee wu ma ko fii dañ ma woo téléphone daal di ma ko wax man fekkewu ma ko. d'après comme ni ñaari maire yi wax rek noonu daal la affaire waaw. Euh, Marie moom plat bi dafa doon liggéey wala comme ni li béy tamit nee da doon liggéey bàyyi nag ay doom alors yëpp même waaw am na njaboot moom mais place bi comme comme été la rek xale yëpp place dañuy nekk ba minuit une heure. yàgg na fay dem yàgg na di fa dem place la boo xam ne ñëpp la ñuy feexloo ah, été bi. lan ngay bi. de li ma koy wax rek daa bëriwul sax xam naa ne daal moom gendarme yi moom. vraiment amee nañ ñu ñun waa Ngor amee nañ ñu depuis suuf si ñu fi doon si côté bii nii sax si ba tey jii nii daal lañ dëkkee ñoom yoon bi dañ koy encadré ba yow boo bëggee génn sax doo am jaar waaw bi passé rayoon nañ fi benn xale si manifestation yi xale bu jigéen même pas 15 ans dégg nga fii sax da ngay perte sa carte d'identité sax daal di fa dem pour pour pour déclarer dañuy xutti sa sa sa voilà lu xanaa bañ ñu rek. xanaa bañ ñu rek laa yaakaar ne loolu la. bañ nañ waa Ngor lool lool lool lool lool. waaw est-ce que ñu jàppoon maanaam fii manque sécurité ma fa am moo tax ñu fi ñëw tuuti. non fii manqué wul sécurité de Ngor gi maa Ngor gi de manqué wul sécurité ñoom ñi sax biñ fi nekkee sax la la la la la xamala insécurité bi gën a bari ñoom gendarme yi gisuma fi seen liggéey gisuma fi seen liggéey. waaw de toute daal sonn nañ métti na si ñun trop liñ ñu def nii métti na trop trop nit noppam nga rey ba pare sànni ko mel ni ku rey muus daw dem sa yoon. léegi mooy doon seen taxawaay fi ah? lan mooy doon suñu taxawaay xanaa sant yàlla rek métti na de waaye mën nañu si dara dañuy sant yàlla rek sant yàlla rek bàyyi lépp si loxoy yàlla nag nga xam ne yàlla moo leen ëpp doole yàlla moo leen ëpp doole. loolu kese lañ ci mën instant bi mënuñu si dara ñàkk nañ ñàkk nañ. njaboot gi fi bàyyi seex yi mujj amaguñu un an góor ak jigéen la amaguñu un an le 23 bi lañu war am un ay seex lañ le 23 lañu war am un an moom la fi bàyyi. waaw am na yeneen doom yu mag mais ñi fi mujjee bàyyi ñoom moo ñaari seex yi waaw ñëw na fi léegi mais demaat na. Mm-hmm. jaajëf. Mm-hmm, merci waay. laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah. laa ilaaha illallah muhammad. tabibi qaribun hal siqaamiya tasmau. yuqaabiluni yawmal muqaffal mushaffau أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله Muhammad nii bu baax a baax ñoo ngi fii ci kër Marie Gueye tiis ak naqar bi nga xam ne nii fekk nañ seen ay famille di ko dund mu doon li nga xam ne nii Sénégal tey ñëpp yewoo ak naqar bi nga xam ne ñoom ñëpp a ko yemale alors ñu taxawoon na dañ ñëw biir kër gi maanaam kër famille am laaj leen mbir mi mu demee salaamaaleykum maam boobu. maaleykum salaam. tur bi naka la. Kolle Samba. lan nga ci Marie Gueye. maag bàyyi ma bokk ndey ak bàyyi. bàjjenam mooy bàjjenam waaw. est-ce mbir mi nu mu demee. nag nu mu demee man fekkuma sax ndax man dëkkuma Ngor Yoof laay sëy Yoof laay sëy waaye maay magi baayam ndax baayam ma bokk ndey ak bàyyi. jikkoom nag xam naa ko xale bu baax la bu bëgg ay bokki baayam. bu bëgg ay mbokkaam wax dëgg yàlla démb rek laa ko gisul barka démb presque ñoo yendu waaw dama xëy tey rek ci guddi lañ ma oo dama xëy gis sama portable huit appel nekk si ma woote ñu ne ma Marie Gueye dañ ko rey man a rey ku ko rey ñu ne ab sàndarma man sàndarma da doon ab sàndarma ñu ne déedéet man loolu ban heure la ñu ne neuf heures jàpp neuf heures demi jàpp dix heures mooy man lu xew ñu ne dañ doon ramaas man ramaas mu ne xanaa da doon bañ ne du dem ñu ne axa kañ ndaw si ku jigéen la gendarme bi ku jigéen la moo ko interpellé laaj ka carte d'identité nee na génn na carte d'identité bi wan ka mu ko wanee carte d'identité mu ne ko yow sax xàmmee naa la yow doomi xaraam nga si li si ñi ko fekke li ñu wax mu ne ko man duma doomi xaraam sama yaay juru doomu xaraam mu daal di ko àmbar ati dugg si oto bi moo dugg si oto doxam ba dugg si oto bi dem avant 15 minutes mu delloo si ko tëral ko fa fa mu ko jëloon sa tali bi du rey dañ ko rey biñ ko delloo si tëral ko fa xale yi mu àndaloon ak gardien ba nekkoon foofu si dégg naa di leen sànni ay xeer ak oto yu yuuxu ñu dem ñu oote sama rakk ji nga xam ne moom la dëkkal fii si kër gi ñu oo ko naka Marie Gueye gendarmerie ko yaboon yóbbu indi nañ ko ñu ngi ko tëral foofu waaye waxul xulliwul waxul kooku dem xool moom hôpital bii lay liggéey si Ngor sama rakk bi mu daal di daw leen utali ma taxi ñu utali ko taxi mu yóbbu mu yóbbu hôpital ñu ne ko yow indiloo fi nit am néew nga fi indi kii dee na bu yàgg metti na mu bàyyi fi ay seex yoo xam ne le 23 la ñuy am un am na ñaar doom yu ndaw yu mu yu nii ay seex la bu góor ak bu jigéen le ginnaaw suba la ñuy am un an loolu mettiwul metti na si xol day ba loolu lépp xamee. Euh, ñun gendarme yi homme de yi ñoo ñu war a protéger homme de ñoo ñuy sonal ñoo ñuy rey ñoo ñuy dóor ñoo te amul nag benn benn benn amul boobu lu waa amul fenn si àddina bi waxuma la Sénégal mais amul fenn si àddina amul fenn fu homme de tenue am droit di dóor mbaamuy rey am nga droit nag ramasse yóbbu say kilifa. bu bu bu tëj jotee bu bu si tëj waree ñu tëj bu si leneen waree ñu def ko waaye yow amuloo droit di saaga kenn baa ngay dóor kenn ñoom nag dañu yëpp a ngor lool lool lool lool ñoom yi xam nga loolu su fa fekkoon ay xale yu góor ay néew yu bare dina bare ay néew yu bare dina bare te nag sàndarma yi dañu nag suñu famille bii man mii sama yaay sama rakku yaay histoire yi amoon ci ngor gi bi ñuy xëccoo suuf si yi ñu bëggoon nangu si waa ngor aljuma boobu la sama yaay dee sama yaay bokkoon ndey ak baay su fekkoon ne ñun si famille bu ñàkk fayda la ñu bokk nëgë ni doon na fekk ñu naan ñoo ko rey ñoo ko rey te billaay ñoo ko rey waaw ndax boo jëlee ay lacrymogène di dàq nit ñi ba si ba si biir kër yi di ñëw di ubbi ay bunta suñu kër gi dugg nañ fi di ubbi ay bunta loolu comme sa gis ci àdduna manifestation bu amee da ngay yem sa sa tali ba mbaa sa mbedd ba koo daax ba sa kii ba mu dugg kër nga bàyyi ka ah. maire bi jóg ak feebaram ma ma mag na bientôt sant dix ans mu génn jóg taxaw lu xew ñu ne gendarme ñoo sànni mu daanu bu fekkoon na famille bu pauvre famille bu ñàkk fayda la ñu dañ naan moo ko rey waaye dañ ñun am suñu fayda jël suñu néew war kaa suuli cinq heures xam nga kañ lañ ko si dix-neuf heures demi ajjuma jooju kenn julliwul juma si ngor lacrymogène yi si biir juma ji euh, lacrymogène yi si biir armeel yi si biir armeel yi ñoo suul loolu du jaay doole su nguur ak Macky Sall gii ah, jël ay policier jox leen ay arme yu rey rey ba rey ñuy di dóor di def kenn xamul dafa metti si xol nit ki am nga droit yow am da tën nga am nga droit gis loo bu loo mën la gis sax nga nga ramasse kooka mu nga ramasse ñooñu yóbbu leen boo leen yóbboo bu sa avocat jotee xëy na bu sa leneen jotee xëy na waaye yow amuloo droit dóor bay rey. est maanaam mag waxtaan ak kilifa yi ndax. mag yu ngor yooyu ñooñu rey bu ñu dee ndax léegi li xew si àddina bi lébu gi mooy rek ku jóg rek nan falu naa jaraaf wala ndey ji réew wala saltige wala loo bëgg a falu rek fal ka ñetti nit fekk la rek daal di fal mu jeex boo fi jógee poos boo gis jaay boo fi jógee suufi jàmbur joo gis jaay bu jëkkoon ay jaraafe yooyu ñoo dookoon ñoo nekkoon sunuy sàndarma ñoo nekkoon sunuy kiiraay bu dara xewee dara dina xew si kër si dëkk bi metti lool mais kamu dal sax du jóg du dem fen jaraaf ya mbaa nday jërew jël ñooy jóg dem di sa buur ba mu ba mu waaye léegi loolu amul léegi xam nga lu am jaay sa askan falu falu ngir ngir toroxal sa askan bu jëkkoon ab lebu kenn ñemeñu ko bu jëkkoon ab lebu kenn ñemeñu ko bu jëkkoon ab lebu du dugg ab kaso bu njëkkoon ab lebu du ñàkk fayda ndax yàlla da leen mayoon sutura soo xam ne ñu am géej gii di si liggéey am suuf si di si bay kër goo dugg boolam dof boola dofa nga fa boo xam ne bu ngoonee ñu ko lekk dañ koy maye ji léegi nag lébu ñooy ñàkk fayda dem di fekk ñii gouvernement bi di leen sibooroo xol ramoo xol def yi kenn xam ñu di leen may ay xaalis xam ay enveloppe ñuy ñëw di jaay seen askan kilifa kilifa yi kilifa yi si kaver bu ñu bu ñu bu kon lii du am du am benn yoon waxatuma laa ay ñaar ay ñett ay toujours toujours rek ñu rey fi nit rek toujours rek ñu rey fi nit te du mujje fen suñu xol bii nag tàng na lool lool lool lool sonn lool lool lool lool lool dinañu dem si yoon nag duñu bàyyi de nu bàyyi lu nu yoon may nu jël yàlla na nu dajal nag docteur bu mel ni Alfousseynou gay mi nga xam ne dafa wax dëgg te yàlla tax li ma gis waaye yàlla bu ñu dajeex docteur boo xamante ne nii dañ koy jox ab mu mu wax leneen Marie Gueye feebarul boppam mettiwul dara jot ko fii la bàyyi tàntàn bàjjanam naka bàjjen ma dem te ñëw jëndal leen ay affaire jox leen ne ma dem te ñëw dem ñu oo bàjjanam naka Marie Guèye euh, gendarme yi ko yóbbu indi nañ ko sànni ko foofu xoolal li gën a ñaaw dem rey ka ba pare ñëw sànniwaat ko foofu tëral ko bu jekk taal seen oto dem sapeur jëlee ko fi de dama dégg ñu naan sapeur nga ko fi jëlee ku ko wax fen na sapeur jëlu ko bàjjanam bii sama rakk ji moo jël taxi yóbbu ko hôpital ndax moo hôpital bii lay liggéey si Ngor moom moo ko yóbbu hôpital mu ko yóbbu hôpital après ñoom ñooñu ci la ñu dem hôpital fekk ka fa ànd ak ñoom ak sama rakk sama caatum yaay yóbbu ko CTO mën nañoo dem nag CTO fekk fa docteur bu melul ni Alfousseyni Gaye def li leen neex waaw waaw bàyyi nañ leen nag ak yàlla li nu man dina dinañu ko def soobee yàlla li nu man dinañ ko def ndax xale Marie Gueye mii si kër gi a dëkk fi la juddoo fi la dëkk baayam fi la juddoo fi la dëkk bëgg ay bokki ana papaam ak yaayam. papaam dañu dee yaayam a jëkk a dee papaam papaam daaw jéeg la dee moom mooy taawu papaam bu jigéen waaw am na ñett ñaari rakk yu jigéen ñooñu ñu ngi dund ñoo xam ne moom ñoo ma bokk ndeex baay am na yeneen ñaar rakk yu góor ñooñu papa la bokk a ñoom waaw seen baay dee na daaw jéeg waaw. fu ñu ngi wax ay affaire autopsie. kii moo topp seen baay. moom papaam kii papaam la moom papaam ma bokk ndey ak baay ak ah, man mii toog ah ñu ngi si biir nii waaw. dama bëgg nag li ma wax nii. gën di ma li li laay war a sóole. waxuma la Sénégal waaye nag àddina bépp a jot ndax sonn nañu sonn goo xamante ne nii bu nu man day bu sama pexe yi mënoon a dem cour d'assises la tudd xaw ma dina fa dem manuma ka nag waaye maa ngi jéem. foofu sama pexe yi mën a jëm nag dina fa jëm ba yeboo nu bokk nu nun suñu famille bi ñun ñëpp ñu rey nu ndax fi mu nekk nii ku fenul ñu rey la ku sàccul ñu rey la ku cagatuwul ñu rey la ku fi normal rek ñu rey la